Euh, coow lu bëri en politique lu yoon la parce que ku xam politique ci coow la judd te itam bu ñuy dëgmalee ay échéances locales yi di ñëw nii mu nekk xëccoo mu nekk élection yu déterminante élection gox-goxaat foo ko xëccoo am foo ku nekk jéem a fëgg sa dënd ne man la donte nag ñoom ku nekk ci ñoom. dégguñu la officiellement nga déposé sa candidature mais xam nañu lu bëgg la ñu ngi koy liggéey ci suuf waaye li am ba am ak li ñuy naqarlu moy parfois au niveau communal da ngay gis ay ño xamni que sen intérêt crypto personnel mo leen ñor ñu woote ay genre assemblée générale ay réunion restreinte pour déporter porter candidature diw te ñu ci dara parce que ñoñu tay ñoo ñoo fi xëyoon bëss tay ji duñu gëmlo gëmloo ni que le ministre Amadou Ba a abattre tay ji ñom ñoo ñëwaat tay ji pour nañu noo dañ ko wara porter candidature au nom de quoi nous nga xam tamit également dañu raccrocher également mun naa cette visibilité parti bi au niveau de la base parce que bu fekkee da nga responsable nga te mosoo la xamé ben activité d'envergure mosoo ñu la xamé ben activité de massification et de dynamisation du parti du yaay ñuy wax lu ñu def pour man amuñu instruction ni d'ordre à recevoir de qui que ce soit lul son excellence le président Macky Sall mom lañuy déglu bu ñu nee kii la ñu ci te comme ñu joxoñ dinañ tok ak mom liggéey ak mom xamal ko rôle ak place bi jeunesse bi am ci mairie bi parce que nak jeunesse bi du nek spectatrice jeunesse bi du nangoti nek également ben force d'appui bo xam ne que dañ ci ba sukkandiku pour atteindre ses objectifs la jeunesse dafa nar nek acteur ak auteur ci li gestion municipale au parcelle jeunesse bi dañ wara taxawal xéxal également wu àq ak yelleefu jeunes au niveau local jox leen seen cër ndax tam buñu dara dem ba élection ñom lañu yaakar pour gagner effectivement tu de tàggat formation production savon et javel déjà ak formation infographie sérigraphie durant 10 jours d'affilée et sanctionné par un diplôme le pareil, pour permettre de ñu am comme base, une ay base pour mën a activité pour nous pareil, euh, mais ce que wax rek euh, engagement l'engagement doit être FIP, au niveau macro comme au niveau micro président il y a une euh, la territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi Et c'est une collectivité locale qui ci war mais force est de constater également que amul politique bu bi nga que dañ ko wara def en faveur de la jeunesse au niveau local té pourtant mairie dañu am ligne de crédit bo xamné pour jeunesse bi pour seen activité pour seen épanouissement par exemple rek tay di formation bi ni pour am salle bu informatisée fii au niveau des parcelles c'est tout autant de problème parce que mairie bi mettre à disposition sa ben salle informatique bo xamné xalé xale yi mën nañ ñëw di fa jàng di fa di fa def lu ñu bëgg té lolu c'est un problème ça c'est le biais ba maintenant nak ku fekké au niveau local cadre légal bi pour encadrer ci question emploi amul jeunesse bi amul sax fu mu mën a dem toog di connecté wu di jàng di gëstu loolu kon day doon problème li ñuy ñaan mooy ñu replacer waa jeunesse au cœur de leur priorité parce que jeunesse bi dafa am solo au niveau local te loolu duñ ci duñ ci tege suñu tànk dañ ci combattre ba mu àgg incha d'accord.